bi ñu ngi leen di a baax yéen ñi saxoo di wétalikoo 7TV télé bi ñu niru ba noppi dañu dajale ñëwaat nañu ci li nga xam ne moo di waajtaayu màggal gi waajtaay yi nag xam ngeen ne laata fii ñu ngi biir Touba Mbacké xam ngeen ko ay fan a ngi nii ah, fas yéene àndandoog yéen nag di eh, lépp loo xam ne dafa jëm ci eh, màggal gi tey ñu ngi dalal ki nga xam ne moo di eh, maam Cheikh Mbacké Serigne maam Cheikh Mbacké Khadim Awa moom la dalal moom nag dafa jiite li nga xam ne moo di AIS AIS nag ñi koy dégg euh, xam nañ ne moo di association islamique pour servir le soufisme dinañ ci waxtaan léegi waaye laataa loolu moom Balla Cissé dama koy bàyyi mu nuyoo fekk nañ ko ci dëkkam fekk nañ ko ci dëkkub maamam waaye fekk nañ ko fii ci guy mbind ñu ngi lay ziyaare Mbacké Balla jërëjëf euh, soxna Sista Maria bismillahi rahmaan alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala sayidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman maa ngi lay delloo nuyoo bu tedd bu mag di am mbégte dalal leen fii ci Touba guy mbind ñuy waajal màggal gi incha allahu rabbi xam naa fii gannaaw suba la incha allahu rabbi di ziare mbokk julli yëpp di ci jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général de Mouride noonu lay nuyoo ci tur AIS sëñ Babacar Sy Mansour ak mboolem xalif yi nekk ci biir réew mi ndax AIS kuréel la goo xam dafa ëmb tarixa yëpp ngir servir le soufisme euh, di ziar tamit euh, mbokk jullit yi war a ñëw yëpp màggal si ak ñi nga xam ne amoon nañu yéene te mujjut antu wala ñi nga xam ne sax ña nga toog seeni kër waaye waxtu wi di ñu suivre ak ci àdduna beeg fépp fu mën doon mhm. ñaan yàlla màggal gi yàlla nañ dugg bismillah rahmaan génn ci alhamdulillahi rabbil eh, lépp rek di xéewal eh, xëy na dañ ci dugg ndox mi yëpp insha allah rabbi waaye lépp dal xéewal la mhm. eh, ndax yàlla su ma nee wa ja'alna mina maa'i kulla shay'in hayy lépp luy dund rek def naa ko ci ndox ñu ñaan nag ndox mi yàlla na wàcce jàmm ak salaam mhm. ñu nekk ci xat-xat tamit nekk ci jafe-jafe yàlla su ma yëkkati yëkkati leen ko waaye xam nañ ne ku ci nekk xat ak jafe tamit xéewal lay doon ceew ndax suñ ci baa jërëjëf balay sa fi ñuy tàmbali moo di AIS e association islamique pour servir le soufisme ñu gis na euh, kër yëpp a ngi ci. Mhm. boo ñu doon présenté tey AIS. E jërëjëf AIS e ni nga ko waxee mooy kuréel gi boole tarix yi nekk Sénégal ngir servir le soufisme euh, ñu taxawal ko depuis 2014 ci ndigalu suñ Sidi Almoxtar Mbacke suñ Abdou Al Amin ak mboolem xalifa généraux yi nga xam ne ñoo fi nekkoon. Mhm. moo taxoon ñu taxawal kuréel gi ngir liggéeyal soufisme ndax Sénégal yàlla du ñu dimbil alhamdulilahi rabbil alamin réew mi yëpp islaam suufi la ñuy dund islam confrérie moom la ñuy dund euh, ñu gisoon ni am ay defi ay defi yu doy waar yoo xam ne euh, mi ngi commencé woon am ci euh, Afrique gi rawatina ba Sénégal défi terrorisme bi nga doon dégg <clears throat> depuis 2011 ca ñoom mu jógee ci ay Ben Laden ni ngi ko déggee àdduna bi commencé jaxasoo ni ñu demee ba 2011 wala 2012 ci Tumbuktu bañ ko attaqué te Tumbuktu nekkoon benn pàcc ci gox yi lislaam yi boo xam ne Euh, patrimoine moo fa nekkoon patrimoine boo xam ne ay mag yu baax yu mel ne Sénégal ay boromi xam-xam yoo xam ne islam suufi lañ doon dund euh, defoon fa euh, bàyyi woon fa seen i œuvre ak seen lu bare bare bare ak seen yu bare bare bare ñu ko daan sàmm ñu gis ne terroriste ba ñu fa duggee ñoom comme ñoom islam suufi ñoom nee nañ duñ ko dund beneen islam salafiste la ñuy dund wala bokk wahabisme donc seen pas-pas donc ci lañ attaquoon yooyu yëpp yooyu ñoo gis ne défi yooyu nag ñu ko ñun nag ñu nekk ay ndaw ay ndaw yoo xam ne Euh, jàngaloon nañu ñu gëstu xam bu baax a baax tamit xam ne am na ci loo xam ne lu état rek moo ko mën a aaral boppam. Mhm. ndax problème mu euh, idéologie la ci wàllu diine dugg ci donte état léegi dem na ba yeewu ci xam ci lu bare bare ba taxaw ci ay taxawaay waaye boobu xawoon naa euh, difficile tuuti ñu ne woon ñun bu ñu toogee rek ne yàcc ne yasar liram ba dugg Mali wala dugg Niger wala dugg feneen a feneen mën naa dugg ci biir réew mi di Sénégal. Mhm. ndax dëgg la état nga fa waaye teewut ñoom bañ duggee ci réew yooyu fañ attaqué mooy fa nit yàlla yi nekk fañ attaqué mooy fa islam fa islam nekk. attaque wuñ gouvernance attaque wuñ palais attaque wuñ fenn ñu ne kon nag ñun duñ toog rek nañ fexe jukkoon euh, servir wala sàmm bokk wala aar leeral bu baax a baax lan mooy lislaam suuf ba Sénégal yi man cee yow mën ko xam buñ ko xamee daan tax euh, ñi nga xam ne dañuy yàq pas-pas yi euh, daan tax duñ mën a àgg ci ñoom. Hmm. xawoon na difficile ndax biñ mais bëreet commencé wax lan mooy soufisme ak daxadiyaat muy défi yi nga xam ne ci kanamam nga xam dañoo jug ne ñoom salafisme la ñuy wooy seen salafiste la ñuy wooy seen bopp wala wahabis jug taxaw ne maa ngi dañoo juum jaxaran yaakaar naa Sénégal nëbbatuñ ko kenn. Euh, wax ne islaam bi islam bokkaale islam nangam la di ko xutba di ko wax. donc nag euh, ñu ne kon bu ñu jugut taxaw rek liñ naan seytaan wax dëgg waaye yàq na man mën naa yàqum xel. Mm-hmm. ci lañ taxaw ne kon nañ nañ boole kuréel goo xam ne nag du nekk tubaa kese. du nekk Tiwaawan kese du nekk Njaasaan kese du nekk Ceneba kese waaye kuréel lay doon koo xam day boole mbooloom këri diine yu yëpp ndax mm-hmm. alhamdulilah yàlla duñu dimbali Sénégal euh, li am Maroc rek mu am réew Sénégal aqida asharia moom lañ yor idéologie boo xam ne achan day ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo kii waaye yor tamit li ñu mën tuddee fiqhu malik moom la ñuy dund maanaam la ñuy dund ci ni ñu attewu euh, islam ni ñu jullee ni ñu wore mhm. naka njëkk moo am ci réew mag ñëpp ci ci loolu lañ ci lañ taalif loolu lañu bind loolu lañ dénkaane waaye euh, tariqa junne asalik te mooy tasawuf ci lañ yare donc kon alhamdulilah rabbi yàlla mën na ñu dimbali kon xëy na euh, buñ boolee force yi boole dajeel rek yàlla mën nañoo dimbali ak déggoo mën a am waaye ñu mën a faire face nag ak défi yi nga xam moo nekk suñu kanam mm-hmm. yaakaar naa ñoom làquñu ko euh, ñu ngi koy waaree di ko xutba di ko def lépp seen xale yi jug di nekk internet bi ñeneen ak ñeneen ku dégg bëccëg man yi may wax yow sax ñu ngi ci waaye nag mm-hmm. ala kulli xaal ñun taxaw nañ mm-hmm. yéen nañ ci ñu bare bari conscientiser nañ ndaw ñi waaw conscientiser nañ baax a baax a baax Euh, yee yeewaat nañ borom xam-xam yi nga xam ne ñi bokk ci tarixa yi tamit toogoon rek xay na euh, toog sa koñ rek xëy na defoo jàpp ne moom mbir yëpp baax na ñu ñëpp tamit yee nañ leen ba jug nañ léegi alhamdulilah rek foo tourné nit ñaa ngi wax ci tasawuf foo tourné nit ñaa ngi koy leeral foo tourné nit ñaa ngi leeral lan mooy mag ñi baax lan lañ fi bàyyi woon kon loolu rek la ayis bëggoon te alhamdulilah rabbil alamin am na ko mm-hmm. ndax léegi ñëpp taxaw euh, tarixa boo dem léegi taxaw nañ boole nañ ay kuréel ak borom xam-xam yi ba ci boo demee ci gàmm yi wala màggal yi sax comité scientifique léegi ñoom ñëpp ñu ngi wax lan mooy leeral tasawuf màgg waxtaan yi ñu waxtaan ci koor yi waxtaan yi ñu mm. waxtaan ci safar yi yëpp ñu ngi leer lan mooy tasawuf ak lan mooy li nga xam ne moom moom la mag ñu baax di doon mm-hmm. kon loolu bu amee nag euh, alhamdulilahi rabbil naan liggéey nañ ci liggéey boo xam ne yàlla sutural nañ ci ba tax daal ñu toll foofu waaye teewul nag ba léegi doo tax ñu bàyyi ndiku ndax euh, ñi ñi ñi contre moom dañu kon ne kon ndax loolu la loolu mooy loolu mooy li yàlla bindee mm-hmm. waaw effectivement loolu la yàlla bindee doomu aadama lool la moo ñëw adduna bi waaye nag saa su ne ñi ah, leera tamit ak aar nañ taxaw rek te bañ a bàyyi te bañ a bàyyi waaw ah, yes dinañ ci ñëwaat fii ci kanam euh, ak tolluwaayu réew mi ak jéego yi nga xam ne moom ngeen ci def waaye bu ñu dellu see ci màggal gi wax ci borom màggal gi ki nga xam ne moo di Serigne Touba fi ñuy tàmbalee euh, moo di mm-hmm. moom bu ñuy wax résistance mm-hmm. ci moom defe naa bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la njëkk a tàmbali. Mhm. muy résistance pacifique. pacifiquement waaw. Mhm. jërëjëf euh, euh, borom màggal gi nag muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul euh, damay wax ne saa su ne ay njàngaleem saa su ne ay doxalinam fu jamono toll rek waa Sénégal war na ci man a tibb pour jariñoo ko rawat na buñ toll ci ay jafe-jafe. Mhm. rawat na buñ toll ci ay jafe ndax réew mi kenn ku ne xam na ne at yi ñuy dund ci tension politique tension bu doy waar bu yéeme Sénégal mosu ko dund. dëgg la Sénégal dund 88 de 92 ak yeneen yeneen 1960 yooyu ngay dégg. waaw yooyu yëpp dégg nañu ko waaye euh, koo dund ko dund ci beneen anam ci beneen beneen ndax dëgg la yooyu daana am politique yi booba ñu daan xëccoo seen biir politiciens yi ñoo daan reyante seen biir politiciens yi ñoo daan defante seen biir waaye bii yoon nag dañ ci dugal wàllu religion. dañ ko ci mhm. dugalaale. boo ne wàllu mhm. religion dañ ko ci dugalaale mooy dañ ci dugal kilifa diine yi bi yoon dañ ci dugal kilifa diine waaye politique yi dañ ci dugal kilifa diine. Mhm. ñaari Euh, loolu moo xaw tax mu xaw a wuuteeg ya daan jaar waaw te dugal gi ñu ci dugal dem nañ ba euh, ñi foo ñi féete ci parti bu ne moo xam opposition wala pouvoir la kenn ku ne am nga say nit ñoo xam ne dañuy taxaw di wax lu mel ne xeme kilifa diine yi di leen yàq lu mel ne xeme. Mm-hmm. donc euh, loolu nag bu amee da ngay gis na kon dafay wuuteeg kon ya daan am ndax ya daan am dara yem ci rek ci langue politique champ politique bi la daan yem. Mm-hmm. ñoom seen biir opposition pouvoir ak seen militant ñu xëccoo waxante lañu wax. Euh, waaye daaw ñu dugal kilifa diine yi kenn daaw leen garambaasu mm. kenn daaw leen xas kenn daaw leen ŋàññi kenn daaw leen duut baar kenn daaw leen joxoñ mm-hmm. kon moo tax bii xaw a particulier xaw a wuuteeg ya daan am loolu nag bu amee kon day jaaju day jaadu ñi nga xam ne ñoo nekk ci diine yi ci nekk tarixa yi ñoom ñu taxaw dañoo war a taxaw ñime ko nag ndax it euh, nit du bëgg dara nekk ci wàllu politique bëgg la caa laafale dugal la ca dugal ci kilifa di leen wax loo xam ne dem ba njabootu kilifa yooyu sax ñu ngi leen di fàbbi ndax it euh, doomu aadama lu mu faral di dégg ci noppam rek mhm. euh, mën naa jeexital ci ab xolom mhm. waaw lu mu faral di dégg ci noppam mën naa jeexital ci xolam donc kon moo tax tamit AIS naka jëkk mës a bàyyi saa su ne gis nga débat yi ñuy def ci télévision yi ñu dañ koy laal euh, ndax it dañuy wax ne nit actualité da ko war di di ko càmbar te di ko waxtaane ndax nit ñi mënoo fekk lu ñuy dund mu nekk ci ay jafe-jafe ñëpp di ko ngawti ngawti ci suuf ñëpp di ko wax wala publiquement yow nga nekk borom xam bëgg ñëw wóoy ko di wax leneen mm. loolu boobaa day day waar te borom xam yàlla bu daan yónni yonante yi eh, situation moo tax mu leen daan yónni jafe-jafe mm. day am ci pénc mi yonante yi ñëw réglé ko nit yàlla yi tamit jafe-jafe dana am ñu ñëw la ko kon boo dund sa jamono mu am ay jafe-jafe nga gis eh, ci wàllu politique ni ñu ko dugalee ci wàllu diine ji dal ci kaw kilifa diine yi parti bu nekk laay wax ndax eh, ku ubbi sa télé réseaux sociaux mën ngoo mën ngoo xool côté bu mën doon fu waaye féete daal bu waxee foo xam ne arrangé wu yow nga féete fenn ñi am na ñeneen jug foofu di dal ci koom. Hmm. te amatuñu ci kersa. Hmm. kon loolu nag jot na kon euh, euh, borom xam-xam yi ak ñi nga xam dañuy wax ci wàllu wàllu diine ak ñi nga xam dañoo nekk ci islam confrérie yi ñu taxaw nag wax dëgg yàlla leeral nit ñi. Hmm. Euh, dëgg la bari na ñu def ñoo xam ne ñooñu naka jekk dañoo mas a compte tarixa yi. ñooñu dañ cee dañ cee di waaye am na ñoo xam ne ci tarixa yi dañ bokk waaye dugg nañ ci wàllu pour dugg noo xam ne am na ñu ci rax ci seen biir ba di leen fàbbiloo yenn yi nga xam dem nañ ba seen i kilifa sax fiir gañ ci fiiroon wala euh, wala jalousie bi ñu amoon ci boo laalee seen kilifa diine léegi dem nañ ba dakkal ko ñoom ba jëlee ko ci ñoom mm. waliyasu billahi taala loolu toppali loolu nag moo tax ñun saa su ne dañuy wax ñun faruñu fenn ñun ni ñu faral mooy mag ñi lislaam lañ faral comme neex nga dégg ko comme neex comme naqari tam yaa xam waaye ñun lislaam confrérie lañ faral islam suñu mag ñi lañ am te ñoom la ñuy sàmm kenn mm. mënuñoo teex comme am nga fulla ak fayda yow mm. mi nga xam da ngaa bokk ci parti politique wala ngaa bokk feneen boo ko opposition wala pouvoir la di jël say position di di di di garambaasu suñu kilifa diine ñun it dana am nañ fulla ju mat sëkk fayda ju mat sëkk li ñu nekk te ñu ñëpp yàgg ñu xam mooy AES di sàmm kilifa diine yi dañu ëpp fulla ñu ëpp fayda mm. heure boo amee fit wala nga am loola jaay ba tax nga mën a taxaw ne man faaw euh, danaa wax ci sëriñ diw faaw wax ci nàngam faaw danaa wax ci nàngam ba pare ñun ñuy sàmm ndoonay mag ñi di sàmm mag nga ne duñ ci wax wala buñ ci waxee nga ne ñun ay complice lañ wala buñ ci waxee nga ne nàngam euh, xam say wax la waaye ñun noonu ala kulli daal fañ nekkoon nañ nekk te ndox du bàyyi yoonam mm-hmm. kuy politique da ngay politique kuy dem da ñu fi bàyyi waaw kon nag ku am fulla ak fayda ba mën a wax ci lu mel noonu di garambas kilifa diine yi bëgg na ñun ñiy défendre kilifa diine nañ noppi wala buñ bu ñu waxut ay complice lañ bu la neexee waaw hmm. bu la neexee defal noonu ndax ñu ci ëpp ci doomu aadama ay njort rek ñaan in yattabi illa dhanna wa inna dhanna laa yughni min al-haqqi shay'an loolu la yàlla wax ci alxuraan waaw gis nañ euh, soxna Maria euh, wax na wax ji xëy na arrangé wu leen ñu jël ko feet la léegi ne daa far fen daa far nang hmm. waaye nag loolu bu la taxee yow si sa Maria li ngay def euh, te mu wóor na lii mooy dëgg ngay déglu keneen ba tax nga mën a bàyyi loolu booba ak ñàkk fayda loolu hmm. yàlla ci yàlla musal mun ñun nag ñàkkuñu fulla ñàkkuñu fayda di éduquer par tey bu ngeen di jàngale euh, Serigne Touba hmm. wala ngeen di fàttaliwaat mbindum Serigne Touba ndax maa ngi gis ci say publication lu ci bëree bëri da ngay da ngay wax li ne moom la sëñ bi daan digle ci ni ñu war a tuddee yàlla ci ni ñu war a jullee ci yonent bi sallallahu yëpp ngeen di ko jàngale loolu la tubaab bi wax éduquer par l'exemple wone seriñ bi wane ne moom danaan résister danaan bañ mais dafa am façon boo xam ne. noonu la moom laa doon wax moom laa doon wax ndax ndax question bi nga laaj léegi loolu du ci dugg ndax résistance Sëñ Tuubaa moom laay wax ne kon bu ñu tolloo fii nekk jamono bi mën nañ ci tibb euh, wane ko. Mhm. ndax résistance pacifique la def moom. de amoon na mbooloo mi amoon na jumtukaay ndax nit daana jug jihaat amul sax kenn ku ne kenn ku nekk ci wetam. Mhm. waaye day fexe ba euh, convaincre nit ñi ñoo ànd ci ñoo ànd ci mbooloom pour mu def jihaat. nit ñi daan xeex wala def nangam fexe ba convaincre mbooloo mi def ne Sëriñ Tuubaa kenn umpale wut ne euh, nit ñi dañ ko wut si woon dañ ko wuy si woon mm-hmm. bëgg ko yaakaar ko gëm ko euh, wóolu ko ci seen côté ak seen diggante ak yàlla seen côté seen diine seen côté seen njaboot nga xam ne dañ ko jébbal seen bopp kooku boo neexoon moment boobu euh, mu def ni nit ñi daan def woote nangam woote nangam woote nangam ci ci ci jël arme jël nangam waaw donte yoon wu baax la waaye moom dafa préféré jël yoon woo xam ne mm-hmm. tariqu silmi maanaam yoonu jàmm mooy résistance boo xam ne no violence la résistance boo xam ne résistance mm. pacifique la jëloon mm. loolu daa feeñ ci diggante ak tubaab yi ndax wax naa ko ci waxtaan yu bari taalibe yi daana ñëw ci sëñ bi eh, di buur ñii di mer ñii di def nangam ngir seen pas-pas na sëñ bi wooñu na sëñ bi def ñu nangam ñu jug waaye sëñ bi dana leen toog leen calme leen ndax li may liggéey xam naa suñu borom subhanahu wa taala mi ma ko liggéey ak yonte sanasa mi ma koy liggéey dal lan moo nekk ci kanam mm. loolu lépp sëñ Tuubaa daan leen ah, nga xam ne bi eh, ñu ko yóbbu ci géej gis nga fu ñu ko woo day wuyu waaw waaye wuyu googu ça n'a rien mu yàq da lu tane tarafata ay ci gis-gisam ci diine mhm. ak bi muy doxe mus la yàq dara mhm. dem na bureau ba ca Ndar dem na jaw dem na fu ne fu ne jagan jagan dañ ko waaye mus la yàq dara ci ci diineem mos na dëngal tal tarafay ay ni diggante borom mosu ko dévier benn yoon mhm. benn yoon mosu ko dévier waaye loolu lépp li mu bëggoon rek tey damay wax ne histoire may na ko ndam ndax euh, koo xam ne 1927 nga fi jógee ah lu ko jiitu nga doon résistance ak tubaab yi ñu doon du fi amee yow nga jël yoon waxam yoonu pacifique yoonu jàmm la euh, fexe ba euh, alhamdulilah say message say discours say njàngale say idéologie nga sol ko ci sa njaboot jóge nga fi waaye bi nga fi jógee idéologie bi jóge fi mm. waaw njàngale mi jóge fi loolu tey dema dem ba tey murid ñuy wax ne ay nangami million lañ ci biir Sénégal ñu dema dem ba ñu ba ci ne bitim réew ñëpp xam nañ kan mooy Sëriñ Tuubaa mm. loolu mooy serrub secret bi ci nekk te loolu bu jëfandikoo woon violence wala mu jëfandikoo woon beneen résistance boo xam ne nangam la mën naa gañe mën naa bañ a gañe wax naa ko mm-hmm. tey ndax yàlla dafa ne gannaaw subhanahu wa taala ñoo gën ñëpp gis nga leen euh, ñii ñu fi ñu jullee ñu ñu yàngam nangam ñii mm-hmm. woote guerre ñii woote mm-hmm. comme dafa suñu borom subhanahu dafa maanu waaye nag suñu tubaab bi xam ne lu dul lu dul yoon yoon li a gaaw ci véhiculer euh, message suñu borom subhanahu wa taala wala wala euh, wisaara lislaam mooy nga def ko ci yoonu jàmm ah. suñu tubaab yoon woowu la jëloon kon mooy ma nga tax ne contexte bu ñu mën a nekk moo xam ci wàllu adduna ngay dox moo xam ci wàllu diine ngay dox bu fekkee ne danga ne sëñ Tuba ci moom la wéetoo wala nga di julli sax boo liiree jaar-jaaru sëñ Tuba ak ni mu doon jëflanteeg noonam yi ba mucc ci ba génn ci tey ba tey idéologie am di law nga xam ne tey Touba bokk na ci maanaam deuxième ville du Sénégal waaw gannaaw gannaaw capitale bi. maanaam Touba nga ci rek maanaam li fi yeewoo daanaka dañuy wax ne li ko Dakar ëpp ba bëri bëreetul. fu ci ne nit ñi daw wut si ko. économie gën fay dox lépp gën fay dox loolu bu fekkoon ne jëfandikoo yoonu jàmm wala résistance passive boobaa du am lu mel noonu mhm. moo tax na ci moo tax mu doxali ko noonu waaye yëmuti loolu sax ngay ne dem na ba sax bay wax ne euh, baal naa pardonné yi nga xam ne ñoo ma doon sonal di ma jàpp que jagat-jagatee bi mu bi mu dellu si dana afawto ani andaay moo tax nga gis ne euh, bi xam nañ ñoo doon sonal Sëñ waaye euh, ñu avancé wu jéemuñu leen sax bañ jéemu leen def na xam nañ Sëriñ Tuubaa baal na leen pare waaw mm-hmm. euh, moo tax bañ demee ci réew tubaab bi lu leen am nañ ko fa euh, kër Sëriñ Tuubaa yaa nga fees dell France kër Sëriñ Tuubaa yaa nga fees Italie ñi nga fees Amérique ñi nga fees fépp mm-hmm. loolu nag tënku ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa xam ne non violence moom la Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa daan wax ne samay mbir maanaam rey sànq lañ sax bokku ci mm-hmm. rey sànq lañ sax bokkoon xam ne dem na ba ci biir mbindam wax aslaxta xaal yi bilarti xaal yi bixdi ayaal yi bilaa yàlla yéwénal nga samay mbir samay mbir yaa ko yéwénal te déplacé wu dem fenn waaye euh, gindi nga ci man sama njaboot te te kenn jooyut te kenn jooyut waaw te kenn jooyut kon loolu wa biyee jadd di sabil wa biyee jadd di sabil bila idan aw alami yàlla yàlla na nga yeesal yoonu lislaam ci man waaye euh, bu mu ànd ak mettit te bu ànd ak lenn loo xam ne noonaa nga lay doon mhm. loolu da nga gis kon suñu Tuubaa yàlla defal na ko ci ci ci wooteem bi yàlla defal na ko ci tarixam bi loolu nag méthode yoon yu mu jaaroon moo tax mooy Euh, préféré mhm. euh, maanaam li ñu naan résistance pacifique moo ko may lu mel noonu mhm. moo ko may lu mel noonu doona wax ne ñoom Mohamed Gandhi ñi nga daan dégg Gandhi ak Martin Luther King ñoo ñëpp jaaroon nañ fi def nañ non violence dëgg la am nañ ci am nañ ci benn réussite ci benn côté waaye teewut euh, seen gannaaw bañ dañ leen a faat ñi faat ñoom ñëpp dañ leen a faat bañ leen faat tam violence am na mhm. waaye suñu tubaab daa fexe ba régler kanamam ak gannaawam kanamam gannaaw amul coow waaye ñi mu fi bàyyi waxtaan ñu wéyal message message ñu ko wéyal ba léegi mm-hmm. ne da ngay mel ne mbooloo mii ñoo ànd ak Sëñ Tuubaa mbooloo mii ñooy ñooy mm-hmm. taxaw taxaw Sëñ Tuubaa loolu da nga fekk loolu doo ko fekkaat feneen mm-hmm. kon alhamdulilahi a génn ci situation bi xam moom situation boobu ngay wax sax ñu toog xoolee jamono ji fu mu toll tey ñu delloo si waat Sëriñ Muntaxa mi fi ne euh, moom Sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo di xalifatul am ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér balay sax moom moomee dafa indiwaat delloo si waat li nga xam ne moo di sàmm Touba war maay dëkk bi. mu nekk actualité nag presque defe naa ñëpp moom la ñuy waxtaanee jamono yu ñu toll nii. suñ mu taxaa yàlla na ko yàlla fayal. suñ mu taxaa xam nga suñu borom daa yéeme te wa taala mm-hmm. ñaan ko mu taxawul ko yoonam mi taxawul ko gannaawam. Mm-hmm. nga xam ne e, kuy nekk xalifa général de Mouride rek dafa mel dafa am suñ Tuubaa yàlla suñ Tuubaa daa ñaan suñu mu tànnal ko e, jamono bi nga xam ne yow da ngay dëppoog moom. Mm-hmm. jamono bi nga xam ne yow boo ñëwee la jamono ba laaj da ko man da nga ko da nga ko mën a régler. Mhm. da nga mën a dund ak ñoom. Mhm. te xad xaddu damm dara du yàqu. mu mel ne Cheikh Ahmadou Mountakha loolu la ko loolu la ko yàlla su ma sonal jagleel. ci mhm. biir xilaafam. waaye lépp ñaanuk Sëriñ Tuubaa la. dafa dégg jamono waaw dafa dégg jamono. ndax fii jamono toll ressources yu toll fii lewetuk Cheikh Ahmadou Mountakha. wallay baaxu ko Cheikh Ahmadou Mountakha diplomatie Cheikh Ahmadou Mountakha xamuk addunaam Cheikh Ahmadou Mountakha ak ak laabiram ak yërmandeem. Ah, bu tomb wu doon bu doon keneen ku moom mbir yi mën naa jaxasoo waaye gis nga moment bi mu tombeel yii yëpp jikko yi ma la wax yëpp kenn ku ne mën na ko gis Seex Ahmadu Muntaxa wallaay dëgg la ñi di murit ak ñi di murit ñëpp ceeb waaye même ñi nga xam duñu ay julli sax gis nañ loolu Seex Ahmadu Muntaxa mm-hmm. xar kanam rek boo ko gisee da ngay belli mm-hmm. da nga koy gis rek sopp ko bëgg ko loolu ko moo rek daanaka moo fi mënoon nekk mm-hmm. moo fi nekk ndax gi ma la wax yëpp la moom la boole Seex Ahmadu Muntaxa ngay xool këram euh, maanaam maanaam day fees dell xam xamewut kim kim jur ak kim jurut tey ñii yéen ñi siyaare Cheikh Mouhamed gis ngeen ko bu ngeen fa demee mm-hmm. eh, da ngeen fekk xamewut kii laa jur ak kii la jurut mm-hmm. day fees dell mm-hmm. ñëpp ñu ay njabootam jox ko moom yaa ngi dégg ñu bëgg ko wut si ko safoo ko mu nekk ci wetam yi leen ñoom ñëpp ak lu man a am loolu la si amoon ko taxaat di dund loolu lay dund tamit ñi nga xam ne ñoom la bokkal yoonu murit mooy ay mag mooy ay rakkam yi fi nekk ak ak taalib yi fi nekk waaye loolu lay dund ak xalifa généraux yi nga xam ne loolu lay dund ak askan loolu lay dund ak politiciens ku ñëw da jàpp na man ma sëñ ma ma ma ma sëñ Muntaxa maa ko moom. da nga jàpp ne sëñ Muntaxa moom sama yëf la ku ñëw toog moom rek. gis nga gis nga bi màggal commencé délégation politique yi. wallaay waaye politique gis nga leen ku ñëw rek da nga bëgg. Mhm. waaw ku ñëw rek da ngay bëgg. gis euh, na délégation wax. man damaa am lu kawe njort ndax li ma gis. nee na man li may yëg ak gis ko Cheikh Mamadou Mountakha ak yërmande ji nee na man dama naan sax li yeex na donc kooku mooy Cheikh Mamadou Mountakha kon daa xam jamonoom Euh, tombeeg jamonoom Sëriñ Tuubaa ñaan ko suñu borom subhaanahu wa taala mu tombeeg lu mel noonu moo tax laabiri ak yërmaande gis nga mhm. euh, ku baax rek la ñuy wax ku baax rek yentu si mhm. moo gën ñëpp mhm. waaye xool yentu sax dañu ko yàq yentu sanc kuy baax kuy yëwan kuy am yërmaande ci yentu sanc nga koy nit yàlla yi ngi dig ñëpp lu am ci barke bi yentu sanc lañu ko amee lu ñu am rek ci barke yentu sanc la mën a te yàlla doon wax ne ashadu naas balaan al ambiya sumal am safal amsal nee na ñu gën ci ay nattu ñu gën ci ay nattu ñu ëppale ay nattu ci doomu aadama mooy yonente yi ku ci gën a topp ku ci gën a royante yi yaa yaa ci topp natt kon Cheikh Mountakha li ko yàlla nattoo jamono bi ñu toll uh, mooy lañ nattoon yonante yi mooy ñuy wax ci ay ab deram mm-hmm. di ko xas di ko def nanga waaye yonte sans mu ñun ko yàlla daana ko wax maa yoqaal laq illa ma xad xil rasul deesu la wax lu ñu waxu doon yonante yu njëkk mm-hmm. Cheikh Mountakha te jamono bi ñu toll yërmandeem ak baaxam ak sellaayam moo tax moo tax nattu yi wàcc ci koom mm-hmm. ndax ay nattu la ndax benn mu nekk violence boo xam physique la wala violence verbale yëpp ay nattu la nit ku taxaw di xas ak a ŋàññi loolu nattu la mm-hmm. nit ku ñëw jël euh, maanaam maanaam maanaam dooleem di ko di ko jëfandikoo loolu tamit nattu la mm-hmm. waaye kon da xam ne kon mbaaxaayu Sëñ Mouhamadou Mountakha sellaayu Sëñ Mouhamadou Mountakha ni yonent sa waxoon ne euh, yonent yi ñu ëpp ay nattu moom ci la bokk waaye lépp nag yërmandeem ak mën a muñam ak ak yiirim yiir doomu aadama yi yiir leen ndax dafa am benn nitu yàlla bu ñu nett li boo xam ne Euh, dafa euh, jaamu yàlla jaamu yàlla ba mujj euh, gàddaay dëkk bi dem ne de dëkk ci almeri dafa jaamu yàlla suma subhanahu wa taala benn soldaar boo xam dafa jógee ci guerre ba ñëw di ko laaj ana ana dëkk bi mu joxañ ko almeri ndax ne nag fi ma këru dëgg fi ma këru mujj moom loolu ci jubloon waaye soldaar bi jàpp na ne kii da koy foowe mm. mu ngàdd ko nit yàlla gi daanu mu laajaat ko mu joxaat almeri mu ngàddat ba bu ñett yoon waa ji mu jógee fa am ko ñëw fekk leen ne ko yow xanaa na ngay waaj a xaru xanaa da ngay waaj a faatu yow kii mooy nangam mooy mooy nitu mooy ku baax ki nga xam ne Euh, gàddaay na dëkk ba ñëw fii fii la def këram nga xam ne lépp fi lay mujj rek waa ji dara loxo yi commencé yuuxu mhm. ne bu ko jégul bu ko jégul dana dana al ko nit yàlla ki ne ko heure boo ma yëkkati sa loxo ba dóor ma rek ba wàcc suuf avant mu jóg ñaanal na yàlla suñu borom la ndax xam na yàlla suñu borom jéggal la moo tax Cheikh Mountakha lii ñuy wax lépp doo déglu ko moom moom du ko dégg ndax mm. ndax ndax amul jot boobu ndax ma ngi ci diggante mu boromam mm. ak diggante mission bi ko suñu Tuubaa bàyyil waaye maa ngay tinul diñ ñi ngay tinul jaam ñi maa ngi leen ñaanal yaa ngi dégg maa ngi leen di ñaanal fa kullu man satami aw laama fax firdoo na ji ma euh, xas wala mu ŋàññ wala mu ma suñu borom maa ngi lay ñaan yàlla na ko jéggal ay bakkaar hmm. Sëñ Tuubaa loolu si wa loolu wax ca mat dafase Sëñ Tuubaa moom mi nga xam moom la si xamam taxaadara yi moom wax na lu ci mat dafa wa kullu man satami aw laama képp ku ma xas wala ko ndax daa xamul kon si xamam taxaate foofu la nekk foofu la taxaw ma ngay ñaan suñu borom subhanahu pour yàlla wàcc jàmm ci réew mi ma hmm. nga ñaan suñu borom subhanahu pour yàlla tinu jàmm moo di seen taxawaay yéen waa ay yes li nga xam ne Serigne Mountakha jël di jox ko Baye Fall yi lu am am solo la. ndax Baye Fall yi seen Pastef seenu bëgg Sëñ Tuubaa seenu wóolu ko seenu dem ba jeex takk. waaw eh, eh, moo tax Seex Ahmadu wax xam leen ci loolu xam ne mission bi di Tuubaa ci aar ko ci kenn mënu ko du Baye Fall mu jox leen ko. jox gi nag eh, faw mu xaw nuru ak yëngu-yëngut ndax li ñaan kuy kuy kuy kuy kuy wàcce rek da kuy kuy kuy nëbb rek daa am daa am lu tax daa am daa bëgg feeñ. Mm-hmm. kuy wàcce rek am na am na loo am na bëgg mu feeñ. Mm-hmm. donc kon xëy na am na ñoo xam du leen arrangé ndax mm-hmm. yàlla sax bi mu yónni yonent sallallahu alayhi wasallam muy digle ko aaye waa Makka dañoo taxaw di ko jabalise waa Makka a ah, Kaaba ga dañoo taxaw di ko jabalise ne kii mm-hmm. dañoo bëgg yàqal kii daf fekk ne fi nanga moo tax fu waaye mën a digle lu baax rek am na ñoo xam du leen arrangé mm-hmm. waaye bàyyil xel ne bu fekkee ne ay nju ay li ñu mën a tuddee eh, li ñu wane ci eh, réseaux sociaux yeeg naan Baye Fall def nañ ki na def nañ ki nangam loolu lépp ay diabolisation la damay wax ne même benn benn yooyu bu amee tamit xamal ne ay junni mit nit eh, ay junni nit ñu nekk ci dëkk bi ña nga mm. am mbégte lool am kontaan lool ci li nga xam ne Baye Fall yi moom leen Cheikh Mouhamed Mountakha teg mm. kon ñoom dañ leen félicité te di leen ñaanal suñu borom soxna gën leen dëgër gën leen kattan ñëpp xam nañu bi leen suñ bi joxee dëkk bi léegi gis nañ dëkk bi ni mu normal macha allah tabarakallah donc nag kon kon ñun ñëpp ci war a jàpp ndax euh, digle lu baax ak tere lu bon yàlla suma soxna dañ koo digal mm-hmm. waaye julli da fàttale kon Baye mm. Fall dañoo tax boobu moo tax alhamdulilahi rabbil alamin màggaru ren gis nga ni mu commencé dëkk bi euh, yi nga fi daan gis yu bare bare gisoo ko bi euh, te dañoo wéyee rek continuité Cheikh Abdou Lahad Mbacké radiyallahu anhu moo fi jëlee cigarette moo fi jëlee sàngara moo fi jëlee yu bare bare ci dëkk bi Tuubaa mm-hmm. donc dem ba indi fi sax ay xaj yoo xam ne dañ doon visite marché marché Ocass ak visite dëkk bi ngir xool euh, Sénégal yi ñu fi daan denc xeetu mel noonu hmm. boobu ba nga koy def am na ñu taxoon di ko critiquer Cheikh Abdoulaye Mbacké daa wax daanaa bu mu ubbee sama kees ay lettre laa fekk lettre yooyu di ko wax naka su noonu kon doomu aadama hmm. hmm. gis nañ ne bi mi ngi jëlaat xar kanamu Touba bi nga xam ne Cheikh Abdoulaye Mbacké noonu la ko bàyyoon xar kanam bi xam sëñ Saliou Mbacke moom la ko bàyyi xar nga xam ne sëñ Sidi Maxtaar mu moom la ko bàyyi moo eh, mm-hmm. eh, loo xam ne eh, ma boo dee boo dee ko dëkk tubaab wala nga di jullit loolu ko wisaare naan xool leen bàyyi xool mm-hmm. la loolu ay benn a ñàkk mm-hmm. am doon wax rek faw yet wi dana wàcc seen kaw wa illa duñ duñ jubbantik mukk donc nag kon ñu ngi leen ñaanalaat di gën a ñaanal xalifa Baye Fall ndigal ko si xam ne taxaa jox mu am ci lu kawe njortam ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ci barke Serigne Touba. Eh, balay sax fi ñu koy tëjee moo di actualité réew mi eh, élection yi li ci des bëreetul gis nañ ni ñu nga xam ne moo di waa benn bokk yaakaar mënut a ñàkk faw ma faw ma wax loolu foofu <laughs> waa yaakaar ba tey amuñu candidat gis nañ ñi nga xam ne ñoo di itam eh, ñi nekk ci opposition bi nekkoon prison ak yooyu màggal gi am na ñoo xam ne bàyyi nañ leen ci ñu génn mais fi fi fi réew mi toll. Mm. ci tension yi fi ñu toll est que am nga yaakaar ne élection yi mën naa ñëw ci jàmm ak salaam. waaw moom lay wax xam nga euh, euh, comme ñun dañoo euh, préféré ne état laïque lañu nekk wax ne tamit normes yi lañ koy doxale hmm. ku war a jiit réew mi faaw ñu dem ci ay séance électorale ñu mën caa dem ñu mën laa tànn nga jiitu ko loolu ñun ñëpp ci d' accord. Hmm. waaw kon loolu damay wax ne loolu lépp mbir la moo xam ne du ñu war a respecté la du ñu war a jaar ci yoon na ndax loolu mooy tax réew mi xel Sénégal ba mi Sénégal ba léegi ci rawatina bi ñuy amee suñu indépendance. Euh, kuy jiitu ci réew mi da koy jaaree ci wàllu élection ñu tànn la. Mm. Euh, nga dem toog ci siège ba pour mën a jiite réew mi Sénégal. Mm. nga yàlla moo ñu dimbali ba coup yi am ci sous région bi yëpp amul ci réew mi Sénégal. Mm. loolu nag bu ñu ko continuer respecté ko rek yàlla mën nañu dimbali réew mi noonu lay fekk loxol borom. ba tax na ci kaw loolu ñoom ñu ngi leen waat ñoom politiciens ñoom laay wax boo gisee première bi ma njëkk bi ñu njëkkee wax mooy leen dañ daan xëccoo waaye daawuñu dugal nit yi diine yi mm-hmm. waaye léegi dañ cee dugal nit yi diine yi ba mm-hmm. euh, yi yoruñu loi yi yoruñu police yoruñu dara. Mm-hmm. ñun euh, wàllu spiritualité lañ yor mooy di waar nit ñi ak di leen delloo. waaw ñun bu ñu gisee loo xam ne euh, buñ ca waxee xëy na yàlla mën naa dimbali euh, démocratie bi ñuy wax ak ni réew mi doxee loolu mën a continuer ñun loolu la wax kon ñu ngi wax nañ respecté norme démocratie yooyu. Mm-hmm. waaw kenn ku ne lay sa àq ñu jox la ko. Mm-hmm. bu ko defee bu àggee ci élection yi. ku su ku réew mi tànn ñu xam ne kii moom la tànn ah. ndax loolu moo ñu dimbale suñu démocratie mën a taxaw hmm. loolu moo ñu dimbale jàmm ci am Sénégal mën am wa illaa burul loolu ni yeneen réew yi mel yàlla na yàlla ci yàlla mos a te yàlla naa ne Sénégal du mel noonu ndax Sénégal hmm. alhamdulilah rabbil alamin bi nga xam ne nit ñaa ngi dégg kilifa yi ñu lay wuti moo xam wàllu politicien la hmm. moo xam opposition moo xam ñu mënti doon te ku mel ne Cheikh Mountakha ne incha allah réew bi jàmm ak salaam rek la jërëjëf balay sa ñu ngi lay sant di la gërëm ci dalal bi ñu dalal fii ci Guy Mbind fii sa sa kër ñu ñëw fekk si la ci màggal gi ci li nga xam ne moo di safar gi waa 7TV ñëw seet si la santaan nañ la gërëm lu baax a baax ñu bàyyi la nga tàggoo ak jërëjëf xanaa di leen sant yéen it waa 7TV di nuyu seen équipe yéen ñëpp ak seen euh, kilifa yi fa nekk yëpp gis nañ liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen koy liggéey ci màggal Tuubaa waaye gis nañ tele bi tamit fi mu toll actuellement nii ndax télé boo xam ne uhuh. euh, ci mujj ñëw la bokk waaye seen euh, qualité ak seen euh, euh, seen seen doxalin seen professionnalisme may na leen léegi Sénégal yëpp ñu ngi koy seetaan <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin kon nag ñu leen ñaan yoon woowu yàlla gën leen ci rek gën leen ci continuer di ñaan màggal gi yàlla ñu jug Sénégal gën ci alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. di wax rek ñi màggal si nañ jug màggal si te yàlla tax Euh, lu ñu gis ci dëkk bi naka su noonu. ñu hmm. moytu yenn film yi di selfie di yenaan lii ak nangam nangam. loolu day mel ne da ngaa da jàpp ne da ngay defar waaye da ngay yàq. Hmm. Euh, ndox mi tamit bari na waaye lépp ñu sant ko suñu borom subhanahu wa rek xam ne jamono nawet lañ nekk. Hmm. jamono nawet ala dëkk bi tamit rëy. ndax dëkk ni ñu koy dëkkee day yokk saa su ne yokkaay woowu nag xëy na mooy waral yenn yi waaye jàpp naa ne lii am ni lépp lu lu nar a lay doon rek ndax inna ma'al usri yusra jàpp naa ne am ndox mu bari am Touba insha allah bu ñu ci jógee réew Touba day gën a defarwaat rek ndax yaakaar naa eh, assainissement bi ngi ci war a wax yëpp incha allah danañ ci gën a jubbu te booba mhm. Touba rek moo ci gagné mhm. eh, kon yàlla ñu yàlla def màggalu jàmm ak salaam ñu teew mhm. a association islamique pour servir le soufisme ñu ngi leen di sant di sant toute l'équipe bi nga xam ne ñoom laa àndaloon di leen wax ne ñu ngi nii rek ni ñu ànd ak saay su ci màggal gi fii léegi 18 safar ba ca cérémonie officielle bi incha allah dinañu ko àndandoo yéen ak suñu équipe yi nga xam ne ñoo nekk biir Touba merci à Issa ak Amadou Kébé nga xam ne ñoom laa àndaloon ci li nga xam ne moo di tey eh, suñu interview bi ñu def eh, seq kook sang bi di leen jox dig daje fi léegi ci kanam incha allah ci yeneen di daje. What?